أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله السميع العليم لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية والصلاة والسلام على النبي الرحمة سيدنا ومولانا محمد مفتاح السعادة الأبدية وعلى آله وصحابته الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد أيها المشاهدون الكرام مشاهدي قناة كيولو تيفي نحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مجزوبة من لب قلب مستهام إلى أشخاصكم العظام قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تن سن تلفزيون بيدي كيولو تي في ديكو ويتليكو فنجن من نك تي غوخي ادونا بي نيغي لين فك دي لين جوخ سونو لوخو خول دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته mu melni ni ngi ñëwati ak yéen ci suñu tafsirul qur'an ba tey ñi ngi ci suratul naba tey ñi ngi war a commencé ci waxu borom bi subhanahu wa taala bi mu wax ni inna lilmuttaqiina mafaza حدائق wa وكواعب wa وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا برم سبحانه وتعالى القرآن مثانيلا دفنيارو كم بوتو دي ميرو أدنا دفا يتدو ميرو الآخرة بوتو دي وا الجنة fay tuddu wa safara tay nak mi ngi commencé ak ñun di tuddu mbiru aljanna ak ña nekk biir aljanna xéewal yamu leen fay prépareel mu wax ni inna lil muttaqina. naka wóor na ni ñi nga xam ne ñoo yam fi leen yàlla wuñu benn yoon limit yi wala saa yu ñu drapé delloosiwaat seen tànk boole kook jigalu yàlla yàlla nee na ñoo ñu dey am nañ mafazan place boo xam ne palaasu texe la ku fa dugg di texe ci am lépp loo bëgg di texe ci am lépp loo bëgg ci nanga ko bëggee ak waxtu wi nga ko bëggee kon aljanna dafa wuute lool ak àdduna àdduna danga fi bëgg dara am ko waaye jamono waxtu wi nga ko soxla woon waxtu woowu day paase loolu nag amul ci aljanna aljana moom lu fa jaam bi bëgg daf koy daf koy am ci waxtu wi mu ko bëggee ak ni mu ko bëggee moo tax yàlla ni inna lil muttaqina naka wóor na ñi ragal naka wóor na ni ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fi leen ko yàlla tegloo mooy ñi nga xam ne drapé wu ñu benn yoon ñooñu day am nañu mafazan ak texe am nañu texe dinañu dugg ci place boo xam ne ku fa dugg dinga texe ci am lépp loo bëgg ci am fa lépp loo bëgg ci ni nga ko bëggee ak waxtu wi nga ko bëggee dafa am saxaabi yu bu ñuy wax ubay ibn kaab radiallahu anhu sayiduna umar al-khattab radiallahu anhu daf ko mësa laaj ni ko lan mooy ragal yàlla sayiduna ubay radiallahu anhu ni ko yow umar ndax mës nga dox ci yoon woo xam ne dafa am ay dëkk seydina umar radiallahu anhu ni ko mës naa dox ci yoon bu am ay dëkk waaye seydina ubay laaj ko ni ko jamono boobu noo doon def mu ne ko dama doon moytu bu baax di xool bu baax fi may teg sama tànk mu ne ko naka hagaza ragal yàllaa ngi noonu souvent dina am mbir yoo xam ne sa bakkan daf koy bëgg lool waaye su sa xel demee ci ne liikat yàlla teral na la ko danga koy xañ sa bakkan ngir topp yàlla mu am ay mbir yoo xam ne tamit sa bakkan da koy sib lool daf koy naqari lool daf koy bañ lool waaye nag nga ne mbir mi kat dina ko def parce que yàlla moo ma ko sant nga def ko ni la ko yàlla sante malgré que sa bakkan bëgg ko ne loolu nag mooy ragal yàlla moo tax yàlla ni li mu lil na naka wóor na ni ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fi leen ko yàlla tegloo ñoo yam fi leen yàlla yamloo dépassé wu ñu ko benn yoon ñooñu day am na ni li ñuy wax mafazan texe ñoom daal dinañu texe ci dugg ci place boo xam ne ku fa dugg dinga texe ci am lépp loo fa bëgg ak noo ko bëggee yàlla teg ci nag xadaaiqa wa anaba lii nag mooy firi texe bi nga xam ne moom la yàlla wax ci aaye bu njëkk bi xadaaiqa am na fa ay toolu jardin toolu jardin yoo xam ni mook toolu jardin yi ñu miin a gis fii ci àdduna bokkuñu lu dul tur fruit ya nekk ci toolu jardin aljana yooyu ak fruit yi nekk ci toolu jardin àdduna yi bokkuñu lu dul tur looloo tax nag yàlla daf ñu koy wax ngir ñu mën a comprendre yàlla ne foofu am na fa ay toolu jardin wa anaban ak ay raisin xam nga fii raisin la tudd waaye am na ci biir téere bi ci yeneen ayaat yoo xam ni yàlla dafay wax ne ci biir aljana waa aljana bu ñu fa duggee danañ fa xewlu ci mboolem xeetu furwi yàlla wax na ci alquraan ci suuratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam aljannatu allati wacida almuttaquun fiiha anhaaru min maa in aasin وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذه للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم يلا نينا والجنة بنيو دوغي بير الجنة duggee biir aljana دانيو ñi nga bu ñu duggee ci biir aljana yàlla nee na bokk na fa lamu leen di dencal ci ay xéewal am na fa ay rivière yoo xam ni ndox la waaye ndox moomu nag wuute nag suñu ndox mi ndax ndox moomu lu mu yàgg-yàgg ci place du tax mu soppeeku du tax mu nëx yàlla ni ba tey am na fa ay rivière yoo xam ne meew la meew moo xam ne moo ko meewu àdduna bi ñu xam bokkuñu lu lu dul tur yàlla dañu koy tudd rekk ngir ñu mën a comprendre meew moo xam ne tamit yàgg du tax mu soppeeku cafka baag melokaan baag lépp dafa neex lool yàlla teg ci ba tey ni am na fa ay rivière yoo xam ne sàngara la sàngara soosu nag dafa neex lool ci ci ñi koy naan lazzatin lisharibin ba tey yàlla teg ci ni am na fa ay rivières yoo xam ne lem la lem pur lem bu sell mu teg ca nag ni biir aljana ñooñu nga xam ne ñoo yemoon fi leen yàlla yemloo bokk na ci leen yàlla di prépareel mboolem xeetu fruit yi bu ñu duggee ci biir aljana dañ ko fay fekk furwi aljana nak ak furwi aduna wute na bokkuñu lu lulul tur ba tey jaam bi nga xam dafa dugg ci aljana bu soxla furwi ciaru bankasi ñoy déplacer wo fañu woo fa nekk ñëw ba fi jam bi nekk ñu yooru ba ci mom jam bi dagg ko xewlu lamu ca bëgg xéewloo motax yalla ni daniya kon furwi nek ya nekk aljana pour nit ki jëfandikoo ko amul benn coono bu mu ciy daj moo tax yàlla ni ñi nga xam ne ñoom ñoo yam fi mu leen yam la woon fii ci àdduna bu ñu duggee daal ci aljana danañ fa am place boo xam ne placeu texe la place boo xam ni am na xadaiqa wa anaba am na fa ay toolu jardin yoo xam ne mboolem xeetu fruit yi ñu nga fa yàlla nag tudd ci raisin tuddul yeneen fruits fii waaye tudd na ko ci beneen saar moom lañ doon leeral noonu yàlla teg ci ne wa kawaayiba atroba am na ba tey ca biir aljanna xéwal yi nga xam ne moom la yàlla di dencal ñi nga xam ne ñoo ko ragaloon fii ci àdduna am na fa lu ñuy tuddee kawaayib kawaayib mooy ay jongama yoo xam ne ñi ngi doog jànq mooy ñoo xam ni seen dënd ba seen cusu ween ya dafa yëkkatiku ndax jotuñoo jote ak benn góor jotuñoo nàmpal tamit benn xale moo tax seeni ween ma nga taxaw daanuwul yàlla nee na waa aljanna bu ñu duggee biir aljanna bokk na ci xéewal ya mu leen fay terale jox leen ay jongoma yu mel noonu teg ci atraban ay maas lañuy doon ñooy bokk benn génération duñu magante dañuy tolloo moo tax kon aljanna jigéen ñi ñoo fay ëpp ndax kawaacib yooyu yàlla di tudd góor gu nekk ay kawaacib nga cay am kawaacib jongoma yu bari nga cay am kon jigéen ñi ñooy ëpp biir aljanna kazalik tamit nag ñooy ëpp biir safara moo tax ñu war a gën a góorgóorlu yàlla teg ci ne atraban ay maas lañuy doon ñooy bokk benn génération duñu magante waaye jigéenu àdduna ak jigéenu aljanna am na différence bu rëy a rëy boroom xam-xam yi dañuy wax ni xurul ayni kenn ci ñoom bu jëloon fulaaram ñu koy jaay bu ñu dajalee àdduna li ci biiram taxul mu mën a mat njëgu fulaar boobu fulaar kese teg ci jigéenu aljana yi amul benn bés buy dolleeku ci seen dund lu dul boog seen taar day yokk day gëna dolleeku waaye jigéenu àdduna yi nag nu ñuy gëna a jëlee âge di gëna màgget seen taar di leen tàggu seen taar di leen wan ginnaaw am na ñoo xam ne nag dañuy nangu dogal boobu xam ne yàlla moo ko teg moo ko tege ñu supporté ko am na ñoo xam ne nag duñu ko nangu dañuy jéem a dem wuti ay produits yoo xam ne moom la ñuy jéem a nëbbee màggat googu ak ras ras yooyu nga xam ne mooy nekk ci seen yaram rawatina seen jë waaye nag loolu mënul nekk يالني وكواعب أترابا كواعب موي جمع كاعب كاعب نك لمي فيري لغة العربية موي جانق بو خمني مينغي دورا مات جنق موتاخ وي كات بي وخني وكم من حصان قد حوينا كريمة ومن كاعب لم تدري ما البؤس معصر يالا تكتي وكأسا دهاقا am na ca biir aljanna waa aljanna ba tey bokk na ci xéewal yi ñuy xéewloo ay kaasu sàngara yoo xam ne yu fees dell la waaye fees ga mu fees nag taxul muy tuuru ci kaw ñi koy jëfandikoo déedéet te sàngara soosu yàlla nee na wuute nag sàngara sii nga xam ne moo am ci àdduna sàngara suuf nag ñi koy naan mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk fi leen yàlla tegloo seen tànk dañoo yem fi leen yàlla yemloo mooy ñi nga xam ni sàngara sii nga xam ne yàlla daf ko xaramal fii ci àdduna ñoom jéemuñu ko jege bay xam ni mu mel ëllëg yowmal qiyaam sàngara sële nga xam ne mooy sàngara aljanna te moo dàq moo dàq xet moo dàq couleur moo dàq lépp sàngara soosu moom la leen di yàlla di fayee ci muñ gi ñu muñee sàngara si nga xam ne mooy sàngara àdduna yàlla wax ci suuratu saafaat ni laa fiiha xawlun wala hum anha yunzafuun yàlla nee na sàngaray aljanna ña koy naan bu ñu ko naanee du metti seen bopp waaye tamit du yóbbu seen xel kon wuute nag lool sàngara bi nga xam ne mooy sàngara àdduna yàlla ni laa yasmacuuna fiiha laxwan wala kizaba laa yasmacuuna duñu dégg ñoom waa aljanna fiiha ci biir aljanna lëxwan coow yàlla ne na aljana coow amu fa aljana bir wi amu fa aljana kenn du fa déranger kenn wala kizaban du càggeen weddi amul kenn ku fay wax kenn di la weddi kon nag loolu wute naag li ñu miin fii ci àdduna ba tey boroom xam-xam yi dañuy wax ni waa aljanna bu ñu naanee ci sàngara aljanna jooju nga xam ne moom la yàlla di leen terale sàngara soosu dee du yóbbu seen xel yi te tamit duñu fa wax benn kàddu boo xam ne kàddu tiaxan la te tamit kenn du fa déranger kenn mu wuuteeg nag li ñu miin fii ci àdduna le gën a rëy nag ci xéwal yi nga xam ne teraanga yi nga xam ne yàlla mi ngi koy defal waa aljanna mooy maghfiratu min rabbihim mooy yàlla dafay jël mbalaanu sutura nëbbu ko mboolem xeetu jëf joo xam ni ñaaw téef la wa aljana jotoon ko def yàlla da ci nëbbu mbalaan sutura ba kenn du ko yëg yàlla ni mu leen ko suturaale fii ci àdduna noonu lay continuer di leen ko suturaale foofu ci àllaaxira du ca yam waaye yàlla daf leen di yërëm yàlla da leen di jéggal yàlla day wuññi jëmmam ju tedd ja ñoom wa aljana seen bët yu tedd yooyu ñu jël ko teg ko ci jëmm yàlla ju tedd ja te loolu kat mooy xéewal bi gën a mag ci xéewal bi nga xam ni waa aljanna danañ ko xéewloo ci biir aljanna yàlla ñu ci yàlla boole yàlla teg ci ne jazaan min rabbika ataan xisaaba yàlla ne nag lii lépp nga xam ne ay xéewal la yoo xam ne maa ko xéewale sama jaam yi jazaan fay la min rabbika mu tukkee ci sa boroom yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ataan may la xisaaban may gu doy sëkk kon boo xoolee ay bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko firi bés sayidatuna aïsa laaj ko نيكو يالا دي دفا واخ فسوف يحاسب حسابا يسيرا يننتي بي دفا واخ ني من نوقش عذب كيب كو خامنا يالا ويتنا اك يو لن سي مبير لن لو نيك مو تيامبر كو خول كو اوديتي سبو بارك يارو يالا دينا تيغي سا يالا دينا لا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu sayidatuna Aïcha ni ko yàlla de mooy wax fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira yàlla moo ni ëllëg yowmal qiyaam ku mu jox téere jëfam ci loxo ndey jooram dana ko xisaab xisaab bu yomb xisaab bu jàppandi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko loolu day du xisaab waaye ard la loolu moo tudd ard mooy exposé yàlla dafay wéet ak jàmm boobu indi ay dossier wan ko ne ko lii de xanaa du yow yaa ko defoon jàmbi ne ko ahankay mu indiwaat lii ne ko lii de xanaa du yaa defoon mu ne ko ahankay mu ne ko lii de xanaa du yow yaa ko defoon mu ne ko ahankay mu ne ko waaw ni ma la suturaalee woon ci àdduna ba kenn xamu ko noon laa lay suturaalee fii ci àdduna fii ci fii ci àllaaxira kon gis nga euh, képp koo xam ne rek yàlla lu ñu tuna say mbir topp ko benn par benn su boba mën nga mujj fu la neexul yàlla nag ni jazaan min rabbika ataan hisaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bis amna sahabi bu ko laaj ne ko dey yàlla mo wax jazaan min rabbika ataan hisaba lolou day da fay ne nit mënul jëf lu ko dugal biir aljanna yonent bi sallallahu alayhi ne ko effectivement nit jëfam mënu ko dugal aljana kon lay dugal nit aljanna mooy yërmandey borom bi subhaanahu wa taala mu ne ko ba ci yow sax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko xatta ana ba ci man mii sax sama jëfu bopp mënuma dugal aljanna lu dul yërmande yàlla kon jazaan loolu day fay la من ربك متكي تي سبروم يو ينتبي صلى الله عليه وسلم ويا عطاء ميلا حسابا مي قدوي سك يلا تكي نجني رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا كون جس نجا ساربي بروم بي سبحانه وتعالى من كوي متلي مبرو الاخره mi ngi koy mottalee taxawaay bu tiitle boobu taxawaay bu metti boobu ay mbir yoo xam ne dana ci am yàlla mi ngi mottalee saar boobu tudd yenn mbir ci mbir yooyu yàlla ne min rabbika rabbu samawaati wala rabbi samawaati bu dee ci riwaaya xafs bu dee ci riwaaya warsh rabbu samawaati sa borom boobu dey rabbu samawaati mooy boroom asamaani juróom-ñaar wal walardi ak suufi juróom-ñaar wa ma baynahuma ak li nekk ci seen diggante arrahmaanu mooy buuru yërmande bi la laa na duñu man minhu ci taxawaay boobu xitaaban waxante yàlla nee na bis boobu kat amul kenn koo xam ni mën nga jël kàddu ci bis boobu wax lu dul bokk yàlla moo la jox ndigal kenn du mën a laaj dara yàlla lu dul bokk koo xam ne yàlla moo la jox ndigal nga am sañ-sañu laaj ko dara moom lay wax ci suratu Hud alayhi salaam yawma la takallamu nafsun illa bi izni yàlla nee na daal bis boobu bisu taxawaay la bu tiis bisu taxawaay la bu metti amul kenn ku fay addu di jël kàddu lu dul bokk yàlla moo lay jox ndigal yàlla ne yow ma bis boobu dey yaquumu dana taxaw ar ruuxu jibril alayhi salaam wal malaaikatu ak malaaka yépp soffan di way sàppe bis boobu daal jibril dana taxaw ak malaaka yépp def benn sàppe ci ñi nga xam ne nag ñoo ne ar ruux fii jibril la ci yàlla namm waaye nag loolu wuute nag li yenn boroom xam-xam yi wax dañu wax ni ar ruux benn malaaka la ci malaaka yi yàlla bindul benn mbindeef ginnaaw arash boo xam ne moo ëpp moo gën a rëy jëmm mbindeef mii di ar ruux bu yowmal qiyaam ñëwee moom kese dafay taxaw benn sàppe malaaka yi ñoom tamit ñoom ñëpp taxaw benn sàppe kon kooku kat mbindeef mu rëy jëmm la waaye bëri na ci alquran loo xam ne dafay tegtale ni ar ruux jibril la yàlla wax na ci alquran ne nazala bihi ruuxul amin wax na tanazzalu almalaikatu war ruuxu suñu maam Seex Seydil Xaaji Malik si radiallahu taala anhu ba muy nettali ci isra wal miraaj bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon na ko ànd ak jibril alayhi salaam ba mu koy nettale ca téeréem bu barkeel bu tedd boobu di xilaasu zahab dafa wax ne rafiquhu ruuxu fi istiftaaxi ahli samaai l bibaana wastabcharu min qaadimin qadimi kon jibril alayhi salaam baatu ruux lu muy ñëw ci alquraan di tegtale jëmmam ju tedd jooju bari na waaye nag boroom xam-xam yi am na ñu ne ar ruux fii yàlla namu ci jibril waaye yàlla ngi ci namm benn malaaka boo xam ne malaaka bu rëy jëmm la moo ëpp ci mbindeef yi yàlla bind yépp ginnaaw bu arsh jàlle yàlla ne laa yatakallamuuna duñu mën a wax foofu daal kenn du fa mën a wax illaa man lu dul koo xam ne azina digal na lahu ñel ko arrahmaanu buuru yërmande bi wa te bu demee bay wax dafay wax sawaaban njub foofu daal kenn mënu faa jël kàddu kenn mënu faa wax lenn lu dul bokk koo xam ne yàlla moo la jox kàddu ne la waxal te soo demee bay wax kat njub rekk ngay wax amna ñu ne sawaban fofu moy la ilaha illa allah yàlla mi ngi wax ci suratu taha yawma idhin la tanfa'u shafaatu illa man nazina lahu arrahman wa radiya lahu qawla loolu nag ñi koy tegteloo moy ñi nga xamni dañu wax ni la yatakallamuna fofu firul wax waye bi ma'na la yashfa'una fofu dal ken du fa meuna intervenir kenn du mën a kenn du mën a defal intervention kenn lu dul boo koo xam ne yàlla moo la jox ndigal nga def intervention ràmb nit yàlla wax na ba tey ci euh, suratul baqara man da alladi yashfau indahu illa bi izni amul kenn koo xam ni dina am sañ-sañu ràmm kenn lu dul boo koo xam ni yàlla moo jox ndigal loolu dey al mooy bis ba alxaqu mooy bis bi nga xam ne amul benn sikki sàkk ne dëgg la amul benn sikki sàkk ne mi ngi suñ kanam te dina ñëw fa man ku mu neex nag ittaxaza na jàpp ila rabbihi jëm ci boroomam ma aban delluwaay ku mu neexkat yoon waa ngi nii yoon wi jëm ci yàlla leer na naññ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wane ne ko yoon wi jëm feneen tamit leer na nañ naññi iblis laanatullahi alayhi wane na ko ñaari yoon yi nag moo fi nekk yow nag yàlla defal na la xel nga mën a ràññale inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon nag ci biir ñaari yoon yooyu yow yaa ci tànn yoon bi nga xam ne moom nga bëgg a jaar yoon bu nekk nag am na terminus am na fu mu lay jëmale bu dee yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ku ci tegee te wàccoo ko du la yóbbu fenn fudul aljanna bu dee yoonu iblis laanatullahi alayhi ku ci tegee te wàccoo ko du la yóbbu fenn fudul safara wal iyaazu billah yàlla ni inna anzarnakum azaban qariba yowma yanzuru almaru ma qaddamat yadah wa yaqulu ya laytani kuntu turaba inna naka man buur yàlla anzarnaakum xupp naa leen azaban ci mbugal xariban bu jege man daal xupp naa leen ci mbugal moo xam ne mbugal mu jege si la mu ngi ñëw léegi tey mu agsi yawma bis ba nga xam ne yanzuru dana xool almaru nit ki maa la nga xam ne xaddamat jiital na ko yadaahu ñaari loxoom maanaam nit li nga xam ne daal jot na ko jëf jiital ko su boobaakat dina ko gis ñu présenté ko ko wan ko ko ci kanamam li mu defoon ci ay azkar ci laa ilaha illallah li mu defoon ci astaghfirullah li mu defoon ci jàng alquran li mu defoon ci dimbali nit ku ko soxla li mu defoon li mu defoon ci mboolem xeetu jëf yu baax yi dana fekk ñu wan ko ko ci kanamam li mu defoon ci safaan tamit kazalik su boobaa nag wa yaquulu dana wax alkaafiru yéeféer bi ne yaa laytani ak a neexoon man kuntuma nek turaban di suuf wala ñu am na ñu ne wa yaquulu dana wax alkaafiru iblis alkaafir foofu iblis la laanatullahi alayhi dafay wax naan yaa laytani ak a neexoon man kuntuma nekk turaban di suuf iblis daf doon ayibal suñu maam aadam alayhi salaam ci bind gi ko yàlla bind ci suuf waaye ba mu demee nag ba gis la yàlla terale suñu maam aadam alayhi salaam yàlla terale ko sëtu maam aadam alayhi yi mu gis moom tamit la mu nekk ci mbugal ak njàqareeg tiitaange ci la wax ne waaye aka man aka neexoon kat man ma nekk suuf ngir ma mujj fi nga xam ne foofu la aadam alayhi salaam mujj ak ay sëtam boroom xam-xam yi dañuy wax nag ni iblis bu waxee loolu suuf daf koy tontu ne ko yow kat amul tedd nga benn bu nekk ci yow ba yàlla war ma la bindee man kon mbokk yi mu mel ni agsi nañu ci fi ñuy yëkkatee jotaay bi mu tollook fi saar wi di daanoo ñu ngi leen di bàyyiloowaat xel alquran di ko bàyyiloo xel suñu bopp mbokk yi jullit kat amut lu gën a tedd alquran yonent bi sallallahu alayhi wa wan nañu yoon wi alquran mooy lépp comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe waxee ne ëllëg yowmal qiyaam kat alquraan dina ràmbu nit te ku mu fa ràmm yàlla daf lay dogal nga texe waaye alquraan tamit dina fa kalaame nit waaye ku mu booleeg sa borom subhanahu wa taala yàlla daf lay téye ak koo mën a doon ak ku la mën a jur هذا وبالله التوفيق إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته